na yaatu na yaatu non mën nañu ñëw ñee nañ bàyyi mu weer bu ñëw meer bu ñëw ba jëm ko daf leen tànk ma ñëw meer yi moom mooy

ndax baar bi fi ko yóbbu macha allah dal na xel vainqueur 1 million vaincu 500 mille ak ASC li ñu fi jot yëpp tey ci Ida mourid kon Mor sekk jërëjëf di gërëm toute la délégation bi nga xam ne ñoo ñëw tey ci Ida mourid danaa ci seppi bopp délégation yi ñu ràññee ci le premier magistrat de la ville de Koungheul di suñu frère le directeur des paysages monsieur Aline Badrali, qui a conduit une forte délégation pour venir répondre à l'appel de son ami Morsec. Remercier le président de la l'association des maires du département de Kungel, le maire de Ribo Escal, M. Merci d'être là. Remercier l'honorable député à l'Assemblée nationale, suñu sœur il a pas fi délégation de Mac qui ko le chargé du sport Djibril Faye Mamadou Sa yu ak ñi ànd ak ñëpp remercier le ministre PCA de l'État des chemins de fer monsieur Mayacine Camara yónni fi suñu frère suñu xarit Omar Ndimbalaan mu téwal ko fi remercier suñu nijaay suñu baay l'honorable député à l'Assemblée nationale El Hadj Mohamed Dieng te yebal fi El Hadj Gaye mu jité une forte délégation remercier le maire de Misserewaden, Wadène El Hadj Moustapha Ndong te son adjoint ñëw téwal ko fi représenter ko fi remercier le directeur de cabinet de la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales monsieur Samba Aliba te Mamadou Diank une forte délégation ñëw qui ci Ida Mouride remercier son chef de service Moussa Kadam chef de service départemental des sports à qui nous devons beaucoup remercier la présidente du conseil départemental bi nga xam délégation ñëw na légui fekk ñu fi Té ki ko jiite mooy Diouf Ndaw le premier vice président du conseil départemental remercier suñu nijaay suñu xarit El Hadj Mame Gor Sow qui est là présent Mam Gor merci beaucoup Ida Mouride sa Ida Mouride la Mo tax suñu xewlé gis la Tay remercier le secrétaire municipal de la commune de Ida Mouride Talamar remercier les trois présidents de zone, la zone de Kerngay, Ousmane Wilane, la zone de Ide Mourid, la zone de Kassewo, Sherif Tongan, Wadi décerner un satisfait aux membres de l'ORECAV de Kungel. Nous avons organisé le tournoi Matiran le premier vice-président Elaj Baba le secrétaire administratif Chandam Ndiaye, le président de la commission sportive Elaj Mansour Ndiaye, Lamin Dabo mi nga xamné chaque fois terrain mo moo fi remercier les deux équipes finalistes ASC Dëkkandoo bu et ak ASC Bokk Jom bu Fass djebel monsieur le maire di profiter ci occasion bi di la indil ak remerciement le ministre conseil Hassan Diop amona na tew a sa wet ndax yéen a le conseil départemental tay dafa dem jaamal ziar Jamal motax tax mu def une pierre deux coups ñeu fi en tant que président ODCAV waaye ñeu aussi représenter ko ci final bu mag bi monsieur le maire kontaan neen bu baax ci liñ fekk tay ci Ida Mouride équipe de football de ci fair play dëkkandoo bu ndun mo gagné bokk jom bu face Diabène de gërëm la jeunesse de la commune de Ida Mouride remercier le président de la commission sport bu commune Ida Mouride suñu frère Ousmane Wilane ci taxaway bi Mortalla Seck ci taxawaay bi Layine Niang ci taxawaay bi waaye monsieur le maire ñu lay indil ay doléance ci commune bu Ida Mouride bi nga xam ne yaa ko jiite ñu bëgg stade municipal bu Ida Mouride bu la ko yàlla man loo nga def ko tribune ba bu ëllëgee booy dëkk final dootuñ luwee fenn tribune di ko indi fii loolu bëgg-bëgg commune Ida Mouride la bëgg-bëgg président de zone yi la nga def tribune ci commune bu Ida Mouride di nuyu représentant conseil départemental mon ami et frère Coly Diouf de di les représentants de l'honorable député Fanta de di les représentants aussi de mon frère Samba Aliba sans oublier monsieur l'inspecteur des sports monsieur Kadam tey dañu am mbégte ñëw fii ci commune Lour fekk ci ki nga xamante kenn la ci ñun di sama mag di sama xarit di honorable au conseiller bokku di maire bu commune Ida mu def ci nag loo xamante ni dañ naan guleet parce que tey ku fi ñëw xam ne monsieur le maire vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour que la jeunesse de Ida Mouride puisse communier dans la ferveur ñu ngi lay sant ci loolu bu baax a baax a baax di wax ne ndaw ñi nii la

muy jeunesse ndaw ñoo xam ne kenn du leen dugal ci li nga xamante ni moo xew tey ci jamono donc ñun loolu mooy suñu yéene mooy suñu bëgg-bëgg tey lii ñu gis ci Ida Mouride gëm nañ ne monsieur le maire boo taxawee ne ndaw ñi def leen nii ñu def kon ñu ngi lay ñaax ci loolu nga gën ci góorgóorlu gën a téye ndaw ñi di wax rek ne bi may nuyoo dama fàtte nuyu délégation wu mon frère Mayacine Camara PCA représenté par Omar Ndimbelan qui est un frère donc maa nuyu moom it di jottali nuyo ci moom bu baax a baax di wax ne bés bi ala daw be na ba pare xanaa li may wax rek mooy ma jëmale ko ci ndaw Ida Mouride di leen wax ne tey maire hésité wul pour ngeen kontaan kon nag defe naa ne boo amee bu mel ni Mor taxawu ndaw ñi nekk ci ay bëgg kon defe naa ne moor yéen ndaw ñi da ngeen ko war a déglu bu baax a baax te defe naa ne déglu Mor Seck mooy tey ànd ak moor jàppale ko ci jàmm ji muy woote mais aussi jàppale ci liggéey bi muy woote kon nag defe naa ne yéen waa Ida Mouride tey monsieur sas na leen sas bi nag mooy lan mooy na ngeen fexe ba góorgóorlu ba éviter li nga gis ne tey moom moo xew ci yeneen i gox ñu éviter fii ci Ida Mouride mu nekk ci bu ko defee man nag sama langage sama message bi may envoyé mooy ñun dafa am fu ñu dëgmal am lu ñu bëgg fi ñu dëgmal nag li ñu bëgg mooy lan mooy joxaat président de la république beneen quinquennat muy beneen juróom kon nag bu ma ñëwee fii ci Ida Mouride mënuma ñàkk a dénk loolu ndaw ñi wax leen ne nag ñun tey Mor Seck ak ñun ñi ñu àndal defe nañ ne li ñu bëgg tey mooy joxaat président beneen juróom te beneen juróom boobu nag ci yéen ndaw ñii leen ko yaakaar donc ñu gën leen ne jàppale leen ñu ndax ñu mën a nekk parce que su ñu nekkee njëriñu departement bi lay doon parce que nag defe naa ne président de la république fàttewul benn yoon commune Ida Mouride président fàttewul ben yoon commune Ida mourid parce que gis li fi xew gis li fi am kon ma ñaax len ci lolu ngeen xam mo d'or d'ordre bi ben la moy vive son excellence monsieur le président de la république Macky 2024 avec le président Benen juróom lañu wax benen juróom nuyu aussi au passage monsieur Mam Ngor Sow mi nga xamante mom mo fi téwal honorable euh, honorable député Mohamed Diagne mangi ngi sant di gërëm ñëpp di jotale nuyo aussi mon frère Guère Tunkara mu jottali président du conseil monsieur le ministre conseiller assam Diop jërëjëf. notre frère Alun Badara M. Monsieur le Président du Conseil départemental, représentant donc Madame Sosé diop Monsieur l'inspecteur des sports Moussa le président de l'ORECAV, mon ami et frère, Tounkara, Monsieur le président de ZOR, Monsieur le président du conseil local de jeunesse, les délégations de l'honorable Fantasal et du ministre conseiller Michel Diop, les délégations de l'INACOA Yessar, Monsieur le secrétaire municipal de la commune de Idemourit, chers invités, camarades sportifs, tey dama Kindigal teew ci le sous-préfet de l'arrondissement de Idemourit Amdi Moustapha qui est empêché ce soir pour les besoins de la grande ziar annuelle de Sine Matar dans la commune de Sali il m'a ainsi demandé de venir le représenter à l'occasion de cette grande finale de la Coupe du Maire, l'honorable Elage Morsec, un maire digne d'un véritable maire. Monsieur le maire de la commune de Itabourite, yaakaar naa ne tey ku fi teew di nga am yaqin xamne mesure de responsabilité bi nga xamne ne mu ngi posé ci say épaule tay l'enveloppe que tu as investi tu la dans cette jeunesse l'enveloppe que tu as investi pour le sport de la commune de Ida Mouride defe naa ku ci tek sa bët dina xamne ne nga sa jeunesse place am dina xamné ne sport place am te lii mooy li nga xamné son excellence monsieur Macky Sall président de la république du Sénégal mom la santé les maires des collectivités territoriales. parce que sport ak jeunesse c'est une compétence transférée té lépp lu ci war ku teew ci bëss bi tay défé na xamné nga ko ci ñu la remercier ñu ngi la ci encourager ñu lay féliciter pour exploit bi nga def tay

dans le message du directeur général le maire de la commune de Kungel. am lu à la jeunesse du département de Kungel. cette jeunesse qui est une jeunesse consciente responsable engagée patriote yakar n'est rien et pour rien au monde vous allez vous engager dans une violence jeunesse pour su ngeen ko naree engage war koo assumer tey la engagement boobu di commencer à travers les actes que vous allez poser war nañ mën a xam ndax mën nañ kon da ci yéen wala déet mais xel dal na parce que lii ñu gis tey ci final bi entre ASC dëkkandoo de Ndoune. ASC Bokk Jom de Fass Diabel. et ASC Bokk Jom de Fass Diabel. football dans le plus grand fair play il y a le de dëkkandoo de de Noun est sorti vainqueur nous voulons féliciter ci li ni def football mais aussi l'ASC de Jom de face n'ont n'a pas démérité parce que vous avez joué dans dans le fair play vous avez perdu dans l'honneur les armes à la main li am solo y a que la jeunesse de la commune de qui a gagné y a que le sport de la commune de qui a gagné et je pense que nous, mel nous, nous am solo exemple pour les autres jeunes qui sont dans les autres communes nous voulons des finales sans violence nous voulons des finales jouées dans le fair play nga xamné du am ma fille, xëccal ma convoquer ma autorité administrative dans sa circonscription administrative. Le camarade président de l'ODECA de Kungel, M. Ker, je pense que lui, war na exemple pour nous copier le message bu lancer il l'a compris et il l'a dit il le fallait et vous l'avez fait comme le dit le grand chanteur Youssou Ndour nañ le maire content na ci la délégation toute la commune et tout le département de Koungheul est fier de cette jeunesse donc félicitations à toute la jeunesse de la commune de Ida félicitations à toute la jeunesse et à tous les sportifs du département de Koungheul je vous remercie au nom du sous-préfet André Moussaba waa commune Ida Mouride dañoo am kontaan nag ba nga xam ne xam naa ne xamuñ sax lu ñuy wax fi toll nii xam naa tële woon nañ wax naka waaye nag tey moom ñu ngi jiital ci nuyoo bi suñ sous-préfet am li Moustapha Ba ab soyam teewal ko fi di nuyu délégation yi nga xam ne ñëw nañ fi eh, ak maire yi nga xam ne teewal nañ fi seen bopp ñu ngi jiital ci nuyoo bi alaaji Madiama Seck jiite association maire département de Koungheul di nuyu di maire di sama xarit di sama lépp ah ku jàpp ci bis bi la mën ne moyens yi tey li ci ëpp moo ko kon loxo mu ci bu baax Euh, maa ngi nuyu honorable Fanta Sall délégation teew na fi ak ombolog bu am solo euh, la madame Socé Diop présidente moo Socé Diop moom itam yónni fi Koli Ndaw Alaaji mu Abed Dieng yónni na fi benn délégation Mame Goor Sow jiite ko Euh, waa Inacoma Koungheul ñoom itam teew nañ fi waa euh, waa Lour euh, maire Nangoka maire Abdoulaye Falawi ab soyam Nangoka mu teewal ko fi ñu ngi koy yóbbante nuyoo bu baax di ko ko gërëm di ko jël jëfal di nuyu sunu xarit maire de Missirah Moustapha Ndong wala nga am moo fi teew Ablaye Ndiaye ñu koy yóbbante nuyoo ci maire yaakaar naa tey mu nga Sédhiou woo na ma téléphone wax ma nga tam nangul nañ ko ah, ah ñu ngi nuyu maa ngi nuyu sama sama ab maire. di leen sant seen taxawaay di nuyu mboolem conseil municipal bu Ila Mouride di leen sant seen taxawaay di sante senesu su Ila Mouride rafetlu nañ taxawaay bu baax baax ñu len di encourager di len digal ngeen gëna japp fu ngeen tek sen tank fofu la ngeen gën ci gor gor côté bobu amna lu géer Tunkara wax mais lepp ci yalla dess su ngeen góorgóorloo jàppale ñu ñu jàppale leen parce que yoonu dara lañuy ñuy joxe fañ koy jëlee yéen rek lañ yaakaar nit nag day def li ko war ba pare toog xaar di laaj ware fam kon nag man leen sant bu baax seen taxawaay rafetlu nañ ko bu baax a baax nee na Ida Mouride soxla nañ derbi Kasawo soxla nañ collectif euh, kan ngay soxla nañ collectif suñu yàlla mayee liñ bëgg sun mandat bii ñu tàmbali ñu tàmbali ko bisimilah ma yàlla nañ ko àggale ci alhamdulilahi rabil alamina suñu yàlla mayee kattan ak fekkee ak tal balaa juróomi at yi jeex incha allah am na yéene lépp loo xam ne wax nañ ko fii ñu def ko ci kattanal buur bi tabaraka taala ñu ngi nuyoo ministère Assane Diop amoon na yéene teewal fi boppam yàlla dogal na mënta ñëw mu yónni géer Tunkara ma Yacine Camara euh, PCA moom itam ñu ngi koy nuyu lu bëree bëri Omar Ndimbalane moo ko fi teewal ñu ngi yóbbante ci moom nuyoo di sant di gërëm. waaw maa ngi sant ak di nuyu presse bi wax dëgg yàlla fu leen di soxlaa rek ñu jóg teew ak sama mbokku. ASP komanda commandant Ndour ñu leen sant di leen gërëm ak ñi nga andal ñëpp euh, parce que wax deug Yalla ñi nga rafetlu taxawaayam bu baaxa baax ndax yi yëpp ngeen gis fi médaille yëpp wax deug Yalla xam fuñ koy défaré lepp Yalla dogal na ci taxawaayam la ko top do ko ba indi ko tay suba lo xey won mako kon ñu ko sant ci lool di ko ci gërëm bu baaxa baax. maa ngi sant waa Ida Mouride góor jigéen mag ak ndaw su ma limee damay juum waaye nag maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu waa commune u Ida Mouride di sant di gërëm sama mbokk alpulaar ñu leen sant bu baax mbokki soos yi mbokki dëkkandoor yëpp ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm ah imaam Mohamed Camara bu Duuba xëy na dégguma ñu tudd ko fi mais yàlla dogal na mu ngi fi teew ak association chef de village yi ñoom itam am na ku leen fi teewal muy Mangor euh, muy Demba Demba Lawbe moo fi teewal association chef de village yi kon ñu ngi koy yóbbante sant ak ngërëm ci chef de village yi yëpp ngi sant président Soni di dalee ci son kat bu Ida muy Ibou Dieng di sant son bu kër gay Ousmane Ndiaye sonu